Salma euh, mbokk yi maa leen di euh, nuyu yéen ñëpp ci seen tour euh, ak seen sant di am mbégte bu rëy rëy nekk fii tey ci conférence de presse bi samay tànk fii tey bi ci njëkk mooy tànk sargal jigéen tànk jaajëfal jigéen tànk sargal Salma ak Coro Mandela ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi mel ni ñoom jigéenu Sénégal amul pour am kersa ci kanamu góoru Sénégal jigéenu Sénégal amul ci am kersa ci kanamu mbooleem yeneen jigéen yi nekk ci àdduna bi lenn rek lay fàttali bi jigéenu Sénégal di nekk buur fii ci Sénégal jigéenu France amul woon sañ-sañ voté jigéenu États-Unis amul woon sañ-sañ voté góoru France rek moo doon voté góoru États-Unis rek moo doon voté fekk jamono jooju jigéenu Sénégal mu ngi nekk buur ci Sénégal donc nous n'avons pas à rougir les femmes du Sénégal les femmes sénégalaises n'ont pas à rougir et Salma ak Coro ak ñeneen ñu mel ni moom mel ni ñoom ku lim jum ce sont les dignes héritières de ces femmes Aline Sitoé Diatta de ces femmes du Wallo de toutes ces femmes yoo xam ne saay bu nooteel amee dañoo béy seen waar góor ëppalewu leen dara te lii Salma ak Coro Mandela maanaam xàll dafa wane benn tendance boo xam ne xaw ma ndax seetlu ngeen ko xaw ma ndax yaa ngeen si bàyyi xel manifestation yi léegi mais ay sër ngay gën a gis ay pantalon de manifestation yi léegi ay karaw yu gudd ngeen di gën a gis que ay ndel comme sama bos bi de manifestation yi léegi ay jigéen la ñuy gën a gis que góor yi mais même gàddaay yi sax je sais pas si vous avez remarqué jigéen ñi dañoo commencé bëri ci gàddaay yi muy gaal muy désert du Sahara ak ñoom seen ça veut dire que jigéen yi ñu ngi jël seeni responsabilité et ça c'est à encourager donc sama tànk bu njëkk fii mooy saluer cela encourager cela bu leen dellu ginnaaw bu leen bàyyil góor yi affaire bi de bu ngeen ko bàyyilee góor yi ah ñu def ci affaire góor waaye góor bu teewee jigéen teew ñu def ko affaire góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp gis ci seen bopp donc bravo à Salma bravo à Coro Mandela ñaareel bi mooy samay mbokk Mame Birame sëñ Saliou ñii ñooy samay mbokk journalistes yëpp ay jàmbaar lañu waaye man ñii ñoo gën a nekk samay mbokk ci journalistes yi ndaxte ñoom laay gis sur le terrain ñuy mëkk grenade lacrymogène ñoom laay gis en général ndaxte ñoom ñooy ñëw ci conférence de presse yi donc man ñoom laay gën a gis ko Mame Birame mun naa toog at duma ma gis Mame Birame mun naa toog at du gis Serigne Saliou donc ñii ñooy samay mbokk te samay mbokk yéen ñii yàgg ngeen ma dégg ma naan leen mais journalistes yi dañoo war a ñëw ci terrain bi te ñëw ci terrain bi du gàddu sa caméra di filmer sa liggéey ngay def dama bëgg muy leer de amul ay non non non ñu nga fa woon déedéet docteur bi liggéeyam lay def. à un moment donné bu ko Sénégal laajee dafa war a bàyyi hôpital bi bu wàccee mu ñëw fekk ci askan wi donc yéen fu mu nekk nii jàpp leen ci combat bi de seeni vues ngeen di wut dama bëgg muy leer jàpp ci combat bi mooy suba am na manifestation indiwu leen seen caméra ngeen ñëw loolu la ñuy def tey yàgg naa ko wax conférence de presse mais dama ko doon wax journaliste yi ni ma ko doon waxee béykat yi ni ma ko doon waxee nappkat yi ne dañoo war a bàyyi di seetaan. donc ñaareel bi nga xam ne moo waral samay tànk fii mooy féliciter les acteurs de la presque que vous êtes ngeen am taxawaay bii taxaar dafa am loo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku taxaar dafa ne boo toogee ñu rey la boo jógee ñu rey la tey ñaa jóg ñu rey ñu si tu parles tu si tu te tais mais parlons et mourons loolu la taxaar doon wax donc dafa mel ni yéen taxawaay boobu ngeen am fii ndaxte 12 ans yi lan la jàpp Adja Ndiaye bu Dakar Actu fukk fukki policier sëgg ci moom di ko dóor di ko dóor di ko dóor ba mu am hémorragie interne seeti naa ko ay yoon ki yoon hôpital principal ngeen foog ne dëgg la fu mujju rien tous nada ba kañ loolu ngeen dudd pendant ces 12 ans là bi ci mujj mooy lan sama xarit sama sœur soxna ab sa an mais c'est normal ku mun dóor ba hémorragie interne Adja Ndiaye bu Dakar Actu amul responsable amul sanction amul ndàmpaay amul dara mais di nga def lii ab sax di nga tëj Serigne Saliou di nga tëj Pape Alé Niang donc yéen lii ngeen dund pendant douze ans ñu naan déet Walfadji kamac ñu naan déet des médias kamac lan ngeen dund pendant deux ans gouvernement bu Macky Sall ak Macky Sall ci boppam en collusion maanaam complot ak yenn chef des médias muy nangu ñu leen di fay ay soixante quinze mille ay quatre vingt mille ay soixante mille xam ngeen bu baax li may wax te yéenay wàcc ci terrain bi ñu doon yaakaar ne le vingt cinq lépp jeex ñu doon yaakaar ne le vingt cinq lépp jeex ñu sànni suñu carte pour wane suñu naqar ci nu ñuy def journaliste yi di leen di dóor di leen di gaañ di leen di gaase nga sol sa gilet ñu bind si presse xanaa léegi policier yi mënuñu lire on a recruté des policiers analphabètes c'est vrai que nag ci biir police ak gendarmerie il y a des nervis Macky Sall dafa profitoo ci recrutement yi mujj yi pour dugal ay nervis et je soupçonne que nervis yooyu ñooy def bon bon yu ëpp yi ngeen di dégg parce que un policier bien formé mënul def lii dafa am ay nervis yoo xam ne ils avaient une mission bien déterminée Macky Sall les a introduits dans la police pour que bu yeneen policiers yi ak yeneen gendarme yi defulee la ca war tuer du manifestant casser du journaliste samay nervi ñoom dinañ ko def parce que ñoom ils me sont redevables ndaxte ñoom mu musuñu woon ma mësa xalaat ne bés dina jot ba ñuy fayeeku payoor weer ay nervi lañ woon ay calo marron lañ woon donc je soupçonne que ñooñu la ñu dugal biir police ñooñu la ñu dugal bii sànni ñooy def liggéey bi. donc bu ngeen jógulee kuy jóg bravo à Salma félicitations à Thioro Mandela bravo à Mame Birame Wathie bravo à Mass Mboup bravo à Serigne Saliou bravo à vous tous lim bi gudd na dama ñëw fii pour wax leen ne bokk naa jox leen ma sama carte membre bokk naa dama ñëw pour wax ne na Sénégalais yëpp ñëw bokk fii front pour la défense de la démocratie bokk naa di ngeen dégg nag lu nekk. di ngeen dégg lu nekk xam ngeen ci combat la ñu nekk man je pas de problème di ngeen dégg dans les prochaines secondes dans les prochaines minutes wala même en direct actuellement ñu ngi naan waaw lan moo tax ñuy taxawal beneen front front pour la défence des euh, xawma de la démocratie lan moo tax dugg leen ci yeneen fii laay commencer tontu bi moi j'ai pas de problème c'est une question de tactique on marche ensemble on frappe séparément ou on marche séparément et on frappe ensemble aw ma si problème kenn waru cee am problème képp ki nga xam ne Sénégal moo la tax a jóg waroo am problème sur la naissance de ce dernier front qui s'appelle Front pour la défense de la démocratie on peut marcher ensemble et frapper séparément on peut marcher séparément et frapper ensemble li am solo rek mooy yenn saay ñu am la hauteur de vue nga xam ne ñun ñëpp war nañ tase ndaxte nag at yii passé décennie yii passé amoon na ay mbootaay en général benn mbootaay moo doon am ah mais mbootaay yooyu après ci mujjantal bi fu ñu mujj baaxul de donc après moi je me pose des questions ban moo gën a baax yàlla rek xam est-ce que def benn mbootaay wala def plusieurs mbootaay mooy garantir que xeex bi dina dem fa mu gën a sori ça c'est un débat que nous devons avoir c'est une réflexion stratégique et tactique que nous devons avoir man xamuma ban moo gën est que ñun ñëpp ñu def benn mbootaay bootu ci ginnaaw Guy Marius Sagna mu trahir ñu mu yekkale ñu wala est-ce que béykat yi dañoo war a jëmmal seen bopp étudiants yi na ñëpp jëmmal seen bopp bañ ko bàyyil politicien politicienne ak politiciens yi moi j'ai toujours été un militant de la souveraineté du peuple bu ñu bàyyi affaires yi politiciens yi sinon dinañ ko yóbbu foo xam ne du ñu neex fekk ne ñun la de ñun ñoo bàyyi ay nit di dang-dangi di jóg di dem réunion et ñoom ñu jàpp ne comme ñoom ñooy dem réunion comme ñoom ñooy bàyyi seen njiité di ko def ñoom ils ont tous les droits y compris de nous trahir moo tax lii dafa am solo je suis venu pour dire ici bravo et félicitations à cette initiative longue vie et bonne chance à cette initiative la man ci laa bokk bu ngeen bëggee itam bu ma demee ma informer FRAPP ne leen a ah, front pour la défense de la démocratie judd na est-ce que ça vous intéresse d'adhérer à ce front-là bu dee mën na nekk bu ngeen bëggee itam am naa réunion tey Diomaye président ma dem na leen ah front pour la défense euh, de la démocratie judd na am ngeen fa seen place bu dee bien sûr c'est possible ñëw leen mais man mon avis personnel c'est que ce genre d'initiative est à encourager suba bu ma déggee ne béykat yi dañoo jóg pour ne non à ce coup d'état constitutionnel damay dem ne leen jaajëf vous allez mobiliser tous les béykat nappkat yi bu ñu defee la même ma ne jaajëf léegi nag ku nekk di dóor ku nekk di dóor Macky Sall est encerclé Macky Sall est cerné Sall fu mu nekk dafa tiit li ngeen di dégg yëpp loolu moo ko waral daf ci bëgg a génn dafa bëgg a génn ci askan wi nu mu ko xojee dafa tàmmoon di jël concom ak oomam teg ko ci boligu askan wi ci baatu askan wi fu mu nekk nii askan wi moo teg loxom ak boligam ci euh, euh, ak ak ak omam ci bolligu président Macky Sall mu bëgg cee génn effectivement waruñu nangu la diversion waruñu nangu d'accord koo xam ne def ñuy on prend la proie la proie l'ombre pour la proie focus rek lan mooy focus 2 avril mooy jour bu mujj ci mandat président Macky Sall lu ko neex nag na def waaye na ko def fii ak le premier avril 2024 ndaxte le 3 avril pare na ci dootul dégg président jamono ji c'est un président sortant le 2 avril lay mujj le trois avril daf ñuy delloo suñu réew bu ngeen ko deful ñeneen dinañ def leneen de ñun ñëpp bu ñu jógul ñeneen dinañ wax leneen moo tax ñun ñëpp dañoo war a bokk et vous de montrer que bokk ngeen et seen place seen responsabilité di ngeen ko jël ba mu mot sëkk. président Macky Sall moo waxoon ne devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de respecter la constitution et de faire respecter les dispositions constitutionnelles moo ko wax naka lañ koy me faram-fàccee xaw ma génn naa ko ci kanamu yàlla ak ci kanamu askanu Sénégal ci ne naa sàmmonteeg sartu ndeyu àtte réew mi ba pare naa am taxawaay boo xam ne ñëpp ci 18 millions de citoyens sénégalais dinañ sàmmonteeg ndeyu àtteem réew mi mooy lu ñuy woowee constitution mais fu mu nekk nii président Macky Sall nekkatul le gardien de la constitution c'est le destructeur de en fait de la constru euh, mais de la constitution c'est le fossoyeur de la constitution ndax dañ koy seetaan duñ ko seetaan duñ ko seetaan président Macky Sall da ngay dem président Macky Sall gasi président Macky Sall c'est fini le 2 avril vous allez partir vous allez partir da ngay dem et c'est irréversible ñu xaar 15 décembre le 2 avril mooy bés bu mujj ñu ngi xaar nag ba ku fi laal Serigne Saliou ñu ngi xaar nag ba ku fi laal Mame Birame Wathie yow la ñuy waxal le président Macky Sall ñu ngi xaar nag ba nga cof rek Salman wala Thioro Mandela ceux qui sont à l'initiative de ce front pour la défense de la démocratie ñu ngi xaar rek les mesures de représailles contre les organes de presse di nga gis loo xam ne auxquels ils appartiennent auxquelles elles appartiennent di nga gis loo xam ne doo ko mës a gis nañu def benn say nañu ànd def benn say tekkiwul ñun ñëpp ñu ànd day tekki ne waaw front bi mën na dóor fii beneen front dóor feneen tel jour ñun ñëpp ñu ànd daje daje def benn manifestation pour man loolu rek moo am solo mais pour man ça c'est salutaire c'est une bonne chose et bokk naa ñun ñëpp nañu ñëw bokk utuma post poste bëgguma ci poste nañu wax rek ne ba sàngam am na lii te bàyyi wax ji de bu dee pour wax la moom jaru ko dañoo war a contribuer à créer un rapport de force qui fasse reculer le président Macky Sall